ami internetu AG Pro TV ñu ngi amaat contentement ak mbégte bu baax a baax di dajawaat yéen rek ci seen info du jour waaye nag képp rek koo xam ni abonné goo ci seen bile ñu lay wax nga daal daw abonné te activé rek li nga xam ni moo di cloche de notification bi ngir ngeen di man di am suñu ay vidéo à temps bu leen fàtte di like vidéo yi ak di ko commenté ndax lu ci ama am solo la politique lan koy daal di dooree mu mel ne rek procès bi doxoon ci diggante. kii di Ousmane Sonko ak ki nga xam ne rek moom moo di Mame Mbaye mu nekkoon nag ab dossier boo xamante ni dossier de euh, diffamation la woon ki nga xam ne nag moom moo di Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang doon ko topp euh, ci rek diffamation boo xam ne rek maanaam rek ak njiñte goo xam ne rek Ousmane Sonko daal dina ko tegoon ci kaw kii di nga xam ni moom moo di Mame Mbaye Niang moom nag procès boobu nag gannaaw rek ba nga xamante ni renvoyé noonu ko lu toll ci deux fois euh, tey jii nag nekkoon 30 rek ci leen ko nag doon àtte boobu lee nga xam ne moom moo di dossier. ci biir loolu ki nga xam ne nag moom moo di Ousmane Sonko daal di wut rek teew fa nga xamante si moom mooy ca tribunal boobule waaye nag gannaaw ba nga xam ne rek audience bi daal dina na tàmbale rek ñenn rek ci ay avocat yu Sonko daal di quitté complètement li nga xam ne rek moom moo di eh, salle boobule daal di gën a dem seen yoon ci noonu nag ci la rek ki nga xam ni moom mooy eh, monsieur le juge rek ak procureur rek daal di rek valider li nga xam ne rek moom moo di atte boobu doxoon ci diggante Mame Mbaye ak ki nga xam ne rek moom moo di Ousmane Sonko kii di Ousmane Sonko nag yoon nag daal di na ko daan lu tolloo ko ñaari weeri kaso yoo xam ne rek du ko daal di tëdd maanaam nag deux mois de sursis yoo xam ni daal di nañ ko ko rek daan daan xam ne ni kii di Ousmane Sonko il est capable. coupable di moins ci li nga xamante ni rek moom la euh, daal di jëf ci digganteem ak Mame Mbaye ba pare nag daal koy alamaan rek lu toll ci eh, deux cent millions de francs CFA yoo xam ne rek ndàmpaay la boo xam ne rek war na ko joxe ki nga xam ne rek moom moo di Mame Mbaye Niang moom lee ñenn nag ci ay avocat Ousmane Sonko daal dinañu génn rek daal di daal di revendiquer daal di xam nag lu ni mel eh, teguñu ko eh, ci yoon ndax am dinañ dugal appel am déet loolu nag lu ñuy daal di pour poursuivre la rek ci jëmmi jamono yi nga xam ne rek dina daal di dikk moom Ousmane Sonko nag daal dina xam ne rek dafay rek daal di def des déclaration rek indi ay leeral ci li nga xamante ne rek moom moo di bisu tey jile ci jano bi nga xam ne rek waroon na ko jano ak ki nga xamante ne rek moom moo di Mame Mbaye Niang jëm ci dossier boobu rek ci wàllu Prodac boo xamante ne rek ak ci diffamation boo xamante ne amoon na ci digganteem ak ki nga xamante ne moom moo di Ousmane Sonko ak Mame ñi nga xam ne naka ñoom ñoo di nit ñi ak naka les partisans yu Ousmane Sonko ñoom naka daal leen xam ne rek mbir mi naka daal ñu ko rek daal di teg ci yoon waaye nag ñu fàttali rek li nga xam ne moom la ñu daan Ousmane Sonko taxul rek maanaam Ousmane Sonko bañ a mën dem ci élection 2024 yi lay di dikk dafay rester toujours rek éligible ci li nga xamante ne rek moom mooy ay droit am ak li nga xamante ne rek moom mooy ci wàllu ak politique mu doon loo xamante si nag peut-être ci benn côté nouvelle bu neex la ci Ousmane Sonko que moom nag dina rek mën a bokk ci élection présidentielles yi di dikk waaye nag li nga xamante si rek moo ci xaw a doy waar mooy 200 millions de francs CFA yi nga xamante si rek dal dinañ ko ko euh, alamaan war ko rek jox ki nga xam ni moom moo di leen Mame Mbaye Niang loolu nag mbokk yi moo gënoon a fees tey ci xibaar yi ñu jox leen dig daje ba beneen yoon incha allah.